tey. <laughs> démb de moom toj nañ fi démb rey <laughs> jëf mbokk yi nuy seetaan yaawoo tey xam naa nag moom amatoo lenn looy wax xeex nga jooy nga lu ne wax nga ko ngir que nu ñëw tey fii ci Abidjan rawatina seen plage bi nga xamante ne bokk na ci plage yi gën a ràññeeku. nu fi amal tey jii suñu rubrique c'est pas sérieux nuy jaajëfal tey équipe bi nga xamante ne ñoom la ñu àndal yépp nu bokk nag di amal suñu rubrique boobu voilà donc nag di leen wax ne foofu ci Sénégal gis nañ fa nag mbir mu doy waar mbir moo xamante ne ni jéggi na dayoo sax daanaka loolu la ñuy wax parce que seetlu na ne kër yi nga xamante ne daanaka ci boori stade la nekk sës rëkk ak stade yi boo làmb amee kenn du génn waxuma la sax génn rek mais biir kër yi lan fay joor ci ay xeer kenn xamul nu mu toll loolu nag problème boo xamante ne nag aduna yëpp nu ngi koy ñaawlu ba fi mu nekk ni fitna ci boppam moom moo juddu ci li nga xamante ne ni moom mooy xeetu làmb yin fay amalax yu ni mel kon du def lu dul fekki ki nga xamante ne mooy sama xarit sama genn wàll si la muñal mu am ngandum maamu reportage boo xam ne def na ko ci. ayca yaaw tey du ma ne mañatoo allez aceke ñuy dund ngir yàlla ak ngemb saa yi ñu xewlee seen robine financier xel alal waaye boobu fekk na dëkkandoo yi stade Demba Diop bis bu ngemb xewlee seen xel ñibbi àllaaxira seen robine financier foiré gis plombier tëleen kenn du ubbi cantine boutique naka noonu kër yi làng ak stade Demba Diop ñoom xeeri ñoo koy encaissé fitna bi ñoo koy weer seeni ligne agresseurs yi ñoo koy njegenaayoo seeni lal tax na ñuy ñaan ñu toxal leen plan jaxaay ndax ngemb yi taw stade stade Demba Diop bu jot ñu inondé ci doon ay sinistré fitna xuus ci géeju tey ngeen dee. waaw ba tey tey wax ne ku yokku cere dolli ñeex foofu ci senegal waaye nag fii ci Côte d'Ivoire mun nañ wax ne ku teg aceke faw nga teg ci jën. li gars yi daan wax voilà donc tant que di leen xamal ne mbir mi yemul rek ci li nga xamante ne nii moom mooy lamb ba ci sax nawetaan yeex yooyu boo xoolee daanaka fitna rek moom moo cay juddu ak lu ni mel kon ñi dëkkee ci boori stade yeex yooyu nelawunu bay yandoor teewul aussi ñi nga xamante ne ñoom nooy football championnat gën nañ leen a parce que ñoom du benn bruit bu ñuy dégg ci ñoom du benn problème match dana fa am ba jeex doo dégg day mel sax dara xewul parce que boo xoolee seen bariwul ay ñetti nit ñeenti nit la ñoom ngay seen ci tribune yi voilà donc nanu ñaan yàlla lépp di demee noonu lépp nu koy teg ci teg ak tey bin bin voilà léegi nag foofu ba tey ci Sénégal gis nañ ne drogue bi nga xamante ne dañ koo nangu ci trafiquant yi daanaka nag lakk nañu lépp lu noo doon xeetu drogue trai trafiquant yi nag réagir nañ mer nañu mer nañu ba mer nu topp reportage bi seen réaction ñiy jaay yàmbaa seen xol neexul ngir taalub yàmbaa gi autorité amal neexul seeni kër rawatina ñu ne ko fang ci télé bi ragaloo seeni client nee na ñu sax day li ñuy ñaan autorité yi moo di ñu collaborer ak ñoom ginnaaw ay citoyen lañu te am na ñu droit def seen commerce takk deri bu leen neexee nangu seen yàmbaa taal ko waaye fang ci tele bi daleen di yàqal client te loolu baaxul seen commerce ndax ay père de famille lañu teg ci jaay yàmbaa la ñu yaakaar ngir dog bu mu gàcce kon noonu nu ko bokk gisandoo noonu la fi mbir mi demee di leen fàttali nag ne nu ngi fii nga xamante ne nag moom mooy Abidjan yaawo nuyoo la nanu ak maamam grand frère am petite sœur am voisins yi voisines yi voisinu yi bon fii à Côte fii Côte d'Ivoire lu ne am na fi lu ne lu ne lu ne lu ne am na fi voilà donc tey wax ne nag euh, mais man daal je me sens pas bien quoi bon vraiment waa équipe yeewu leen baal leen ma de waaw mais nu mu demee nii <coughs> sama ndey waaw mais nu mu demee nii eh! ne voilà jeex na voilà mu nekkoon euh, tonton Ada Sylla muñal tey moom no comment laa wax tey moom du ma ci commentaire ki daa wax ba nen ni nen bu góor wala nen bu jigéen. looloo jar a laaj c'est une bonne question. en tout cas ñu ngi leen di remercier ñoom itam chaque jour ñu àndi seen touche humour et derrière humour bi day am leçon de morale boo xamante ne am na solo bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal équipe boo xam ne euh, tonton Adala ak Sylla Muñal euh, léegi nag nee naa leen tey jii euh, c'est une journée spéciale yeewu leen c'est assez spécial parce que tamit Euh, ki nga xamante ne moom laay ko présenté ndool émission bi muy Khady Ndiaye di xale bu yaru xale bu baax bi euh, nga xam ne nag tey jii tey la anniversaire am Euh, donc anniversaire bi bis du tuuti borom lay tollool comme ni ñu ko waxee. Euh, dañ ne anniversaire démb wante anniversaire bi du ay waxi kese. ndax dañoo am nag ay gâteau kii yi nga xamante ne moo tax ñuy wax anniversaire donc dañ koy célébrer daal ci yeewu leen tey jii. joyeux anniversaire. merci beaucoup Kebs. <laughs> happy birthday tey dañuy noos noosu tubaab. dafay mhm. bu tubaab ah pourquoi tubaab noos <laughs> noos xale yooyu la ñuy wax di naan tubaab <laughs> ñaanal ko gudd fa nag euh, wér rek yàlla na at yokk yokku màgget bañ ne mm-hmm. weer di la weer yi ci nag bu tàng bi ngeen noddanti yax yi mm-hmm. euh, comme di nga ko waxee woon rek cotise pas njàcc pas mm-hmm. ku ku kaddu doo nga dinaa keek jox ma kado yow sax tay sa keek yi est bëgg naa <laughs> moo ci desoon nag. en tout cas ah yéen de commencé waaw gis nga gis nga commencé na boo tax boo comparé ah. en tout ñu ngi koy souhaiter la meilleur pour la suite di la ñaanal yàlla bàyyi la fii ci suñu kanam ngay bégal téléspectateurs yi euh, ndax itam ba ñu démarré yeewu leen la ko gis visage boo xamante ne bu bees la ci télévision bi ñu lay dalal ak jàmm man sax. Euh, mën a wax waraguma fee dalal kenn daanaka damay ñi nga xam ne ñoo ngi ne. kër gi benn la ñëpp kër donc c'est un plaisir tous les matins moom vraiment euh, mu nekk xale boo xam ne ku xarañ la ci li muy def mën na ko euh, te mu ngi yee téléspectateurs yi dans la joie et la bonne humeur. te aussi <laughs> non noir fexeel ba ñuul noir ngay wax <laughs> donc nag joyeux anniversaire ci tënk léegi nag an ana gato baa ngi nii. da ngeen di jóg nag ñu ko. et euh, je voulais en profiter pour remercier Ndiouga Niang de l'hôtel King Fahd Palace donc moom bëggul sax ñu remercier ko dafa bëgg rek ñu def benn big up bu mag ki nga xamante ne mooy équipe bi muy liggéeyal yépp foofu ci uh-huh. hôtel bi ak yaayam ak soxnaam tamit euh, di remercier la pâtisserie Ibrahima Mang benn boulangerie bu ndaw la ci euh, euh, Ngor village mais dañuy defar affaire yu am solo ndax lii nii ngeen di gis nii gâteau bi ni ñuy filmer di monter mu rafet ba dee neex torop nag te ku amul cadeau doo ci mos ñoom ñoo ko defar xam <laughs> faw mu gërëm et puis daf ci def sax TFM yow affaire bi. waaw <laughs> c'est vrai parce que dafa bind toute l'équipe de la TFM euh, souhaite un joyeux anniversaire à Khady Ndiaye Bijou de Yeewu Leen franchement ça fait énormément plaisir mm-hmm. et puis buñ dee wax gërëm tamit di gërëm ki nga xamante ne dem moom a njëkk a woo dina xàmmee boppam ndax moom da ko doon mu minuit bi la doon xaar muy sama yaay. <laughs> Euh, remercie aussi euh, ñi ma souhaité joyeux anniversaire yëpp euh, à travers le net parce que depuis démb nag sama téléphone mi ngi vibré di vibré waat xam naa ne yéen yéen a may envoyé ay message ça fait énormément plaisir merci beaucoup. Euh, man huit bougies fi gis bi huit ans nga am. huit ans laa am daa mel ni def ko deux ans. waaw jóge leen nag six bougies. Marie Christine bisimilah. bi bougie. kay. dañu ko bàyyi rek moom dafa mel ni nekk de cérémonie bi. waaw moom dafa ni. <laughs> waroon na ànd ak ban laay commencé ah. waa dëgg dëgg vieux Diouf boo ñu tegaloon euh, benn. joyeux anniversaire joyeux anniversaire waaw. ban bi. wala kon yow woy ko bu dee bëgg. ma ñu leen ko woyal bokk. joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire du happy birthday to you. merci beaucoup Marie. tous mes vœux bonheur. merci. bravo, longue santé, prospérité. jëkkër bu baax yaa ngi fi bëgg <laughs> les fa benn ci suuf. bravo happy birthday merci beaucoup après ñu gaaw indi euh, paaka yi dagg ko ay consort. ñi romb fii yëpp mën nañ ñëwaa ah, ñu nekk ci yéen ñi seetaan ñëpp ñoo leen lekk ci gàttal leen ngeen daw si gaaw a ñëw TFM gâteau bu bëri mi ngi fii nii boo ñëwee di ngeen lekk ba suur naan ba màndi ku yéex nag ñàkk gaaw leen gaaw daw si leen précision bi et sérieux ah ñëw leen fii nii boo leen di ñëw boo leen indiwoon cadeau. on vous invite <laughs> tous sama man ñu ngi leen di invité ñëpp nag ñu ñëw uh-huh. déguster c'était l'anniversaire de Bijou nga xam ne rek tey jii euh, la ko doon euh, célébrer ñu ànd ci ak équipe bu yeewu leen ndax euh, c'est toute une équipe moom moo waral mm-hmm. tey jii mu àndi fi gâteau pour célébrer li nga xam ne moom mooy anniversaire am ñu koy ñaanal jàmm ju baree bari tey jii nag kiis bi est que tal nga ko. ii dama koy def man sama cadeau yi dama koy maye la tey may maye cadeau bi. gaawal donc kiis du bi ci repère historique lañ koy def tey Euh, bann région lañ leen permettre ngeen découvrir histoire am est-ce que Casamance la wala Dakar réponse bi xam naa ni yomb na am ngeen ko bu dee seetaan ngeen euh, yeewu leen donc envoyé leen ma ko juste à tfm yeewu leen arobase gmail point com euh, bu ma defee tirage au sort ngeen am ay cadeau yu am solo yoo xamante ne dinañ leen koy may voilà Kebs voilà léegi nag li ñuy def rek mooy astu nga jox euh, rendez-vous téléspectateurs yi dema ma fas yéene fee dellusi ci aljuma ji na cee ànd ak El Hadj Assane Gueye El Hadj Abdoul Aziz Mbaye ni ma leen ko moo waxee rek seen mbégte suñu yitte moo ñu fi tax a toog. <laughs> moo fi tax a toog képp koo xam ne yeewu nga bokk ci équipe bu yeewu leen bi fas yéene indil nit ñi saa yu ñu yeewoo loo xam ne euh, dina leen gunge ci journée bi li nga leen doon lii nag moo nekkoon seen émission. yeewu leen ce plaisir de vous la présenter di leen ñaanal yenduk jàmm di wax joyeux anniversaire à Bijou longue vie longue euh, bon week <laughs>